الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد سيرين بي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تاي أكسي ناي في نوي سلا زيار لا كي ترو سا دوم سا طالبي بريزان ابلاي سيلا من وون نا نيو تاي سي ياو ابلاي سيلا زيار لا كي تورم ñaanal la ngërëmal Serigne Touba bi la lépp bi la ñëpp yéene ndax ngërëmal Serigne Touba mooy ngërëmal suñu borom ndax Serigne Touba du gërëm ci dul ngërëmal yàlla wa ridwanullahi akbar sant la it lislaam bi nga xam ne moom la Serigne Touba représenté sa waajur wu baax wa sëñ Motoda Mbàkke bu ñu ko masaan ne que Serigne Touba day wax kër lislaam ndax sëñ Touba l'islam jep la fi nekkal Mbàkke tay yow tamit l'islam jep nga fi nekkal dajale de lépp rahmatan lil alamin ëpp na sax lil muslimin waaye rahmatan lil alamin non la ko yonti sallallahu alayhi wasallam sallam nekke woon noonu la ko Serigne Touba donne won ci mom Mbàkke non nga ko fi nekkale ngir Serigne Touba yalla na la fi yàlla bàyyi ànd ak wér ak wér lolou la président bay sey ne woon ñu wax la ko santat la gërëm la jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. dégg naa wax bu baax dégg naa ko déggu xol ni ma ko déggee sama nopp dama ko sedd na bu baax ab soññu la rek bu rëy ci man sama soññu la rek bu rëy ci man kon noonu leen ci sant di leen gërëm bu baax. waaw ki ko dimbali mooy ki sañ soññu ci li koy jëriñ. waaw yëg yëg naa wax yëpp ay soññu la ci man. mu ne yëg na wax jëpp kàddu jëpp. mu ne nga nuyoo ko sëñ Abdoulaye bu baax a baax santal ko gërëmal ko ko bu baax waaw nee na nee na mu ne nga ko jottali ziar bi sëñ Abdoulaye bu baax a baax santal ko gërëmal ko ko ci taaxam ak yitte waaye rawatin moom sëñ Modou mooy koo ko di ñëw maanaam di indi otoom maanaam ak carburant ak personnel am na suñu si ab latif lépp loo xam ne lu jëm ci wàllu Touba la maanaam lépp da koy def màggal Touba gi dana fi def fukki fan ak juróom ba ñaar fukki fan lépp def ko addee suñ Touba di jàmbaar loolu nag waaw mu ne yëgoon na ko waaye mu gën ko ràññee baax a baax ndax jëfam ak taxawaayam sëñ Cheikh mais mu sëñ ab latif waxtu mu ne da koy wax sëriñ bi ndax bu màggal gi jubsee day bàyyi itam yëpp personnel beeg ñëpp la fi indi waaw mu ne nga santal ko ko gërëmoo ko baax a baax. yëg naa taxawaay bu baax. Mhm. te maa ngi fàttali sama mu ne yëg na taxawaay bi mi ngi fa yéene feddal ay laxasaayam gën ko ànd ak yow moom mii ko am taxawaay la. ci réew mi di jàmbaar lool comme sëñ Modou Dieng mu ñaanal ko baax a baax jërëjëf taal mu ñaanal Mbacke taal bi Dieng ñëpp taal seen loxo bisimilah. تبا لمبغضه تبا لحاسده تبا لمن عندا